ANIDA bu euh, kii diggante Koungheul ak Medina Tayro Koungheul Socé commune Fass Cekkeen na nekk. waaw hmm. ah, forom bi moom ñëpp ko gisal seen bopp di sant yàlla bu baax di remercier bu baax ci vraiment initiative bi dafa am solo am solo boo xam ne nii dafa ñëwee itam ci waxtoom ndax euh, nit suy liggéey nga fekk ko fi nga xam ne nii fa la nekk xool jafe-jafeem. euh accompagner ko utul ko ay partenaire pour ñu ñëw euh xol li nga xamné ni mom moy sen gom andi len diw gi ko wara fajj ñu tégal len stratégie bo xamné fa ngeen wara jaar lolu mom dañ ci remercier partenaire bi moy CICET bu baaxa baax di remercier tam jigen ñi nga xamné tam ñu ci ferme yi di liggéey wax deug yalla nit ñu am jom lañ bayyi sen ité bayyi sen lepp ngir lan accompagnement bi nga xamni ni tay gissal nañ ko sen bop moy giss na li sen avenir bop la di remercier tam conseil départemental euh, en euh, grâce à Ali euh, Sall nga xamni ni mom itam si liguey yi rek lay dox di remercier bép membre bo xamni ni mi ngi fi ni voilà personnel yi parce que li am solo moy vidéo yi nga xamni ne ni consistance bi teg na ko fii mën na nek témoin suñu digënt ak partenaire yi benen ñun ñu ngi dëkk ak partenaire yi partenaire yi man nañ dikk ba suñu site ñu xol Euh, Saloum émergent lu ko tax a jóg mooy ni ñu gisee Sénégal émersion ñun saalum la ñu bëgg fi ñuy comme Saloum la ñu loosi diwaan bu ñu nekk ñun tam ñu fexe mu nekk émergent mu uyuwaale baatu Sénégal émergent euh, demoon nañ sax bu amoon xalaat boo xam ne ni euh, en grâce à Juma Camara ak ñi nga xam nañu ñu membre yi ñu ne dañu def pourquoi mënuñ def usine fii pour ñu accompagner ñi ndax def nañ effort yoo xam ne nii mën nañu permettre nañu pour ñu def usine parce que dafa bëri lu ñu manqué ci ferme bi ferme la boo xam ne nii coût bi dem na si deux cent nangam millions mais coût bi euh, ferme bi bi mu démarré dafa am benn accident travail boo xam ne da dal ñu ànd ak muñ ak métit nag muñ ko ànd ak moom léegi ñoom ba ñu demee ba gis ne exact na euh, ñii ñi ngi si ñi ngi si yoon bi ñoom ñëwal nañ seen bopp ci ferme bi gis ne carrément ñii jàmbaar leen waaye dañu amul euh, partenaire yu leen jàppale ñoom ñu dox di uti partenaire tey ba gis indi leen ci fii tey forum bi loolu mooy objectif bi mooy nan la ñuy gisee suñ bopp ci département bi ba euh, mbay ak sàmm bi nga xam ne ni département bu Koungheul am na ko ci ay koom-koom ñu mën ko euh, réaliser ci marché bu Koungheul parce que ferme bi mu ngi ci pegg Koungheul bu bu développé Koungheul yëpp a développé parce que lycée bi ñuy defaraat mu ngi ci peggam comme ni ma ko waxee nit mën na jàng ci lycée bi dem def ko stage li Aliou baa ngi nii ci wetam lépp luy économie mu ngi mu ngi si ñu ngi koy jàngale foofu témoin bi mën na jege ko centre formation bi dem si ferme bi kon ferme bi waruñ ko seetaanee ñi nga xam ne tey ñoom ñoo fa nekk rek di liggéey foog ñu di dem di leen jàppale si li nga xam ne mooy activité bi parce que bu développé département bi yëpp ay développé wu euh, am nañu yaakaar am nañu yaakaar parce que ñun ñëpp vraiment kenn ku si nekk tey bi mu xoolee gis na ne lii dañ ko yéex a def comme ñun ñëpp dañoo am compétence ne confiance ci ñu bopp gis ne dañ koy yéex a def kon am nañu yaakaar ne partenaires yi dañuy financer parce que kenn ku si nekk am na lu mu jël mais fi ni ñoom am na ñoo xam ne dañuy jël seen décision ñëw ci ferme bi pour waxtaan ak ñun am na ñoo xam ne ni am na accord yu ñu jox ñun pour ñu jox rendez-vous lu ci mënul xew fi ñu toll nii dañuy gën gunge suñu xalaat ak ñoom ba fi ñu bëgg a ñu man fa ag baax ak contentement. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant yàlla jullit sayidina Mohamed di sante sama ñaari wajur man ma nga tuddu bint Dia dekk Lour escal nek perseda Pafinka bu régional bu kafrin en même temps perseda de kolek bu Lour escal eh, de rafelu jotaay bi de waxna rek jotaay bi ñu ko doon kar avatay su teeloon a ñëw konoon département Koungheul ñun romb nañ ci fi ñu toll parce que gis nañ ne euh, ku la bëgg yóbbaale visite wu la ci biir euh, kër gi fekk la si yoon bi kon yow am nga yaakaar ne buñ la yóbbaalee da nga bëgg mën a yegg fi nga jëm kon dañuy sant di gërëm waa CICEC e di sant di gërëm tamit bépp partenariat bu fi ñëw tey parce que ñun gis nañ ne eh, partenariat bu fi mënoon ne ñëw li nga xam feebar bi nga xamante ñun ñu ngi koy tawat su su fekkee ne yàlla jàppale nañu may ñu dund ak wér danañu gunge ba ñu yegg fu ñu bëgg yegg ñu nekk eh, staru ëllëg eh, département bu Koungheul incha allah yëngu wàllu meew ñu ngi yëngu si wàllu mbéy ñu ngi yëngu si wàllu càmm wa ndax ku ne élevage nga ne agriculture kenn ci monte dem wacc morom ma mu ngi mel ne ak jëmmam inshallah rabbi amna yaakar ni euh ñu ñu wanale te ñu ngi fekkon ci yoon bi nga xam ne ñoom lañu te ñom ñu ngi tataan yoon bobu si eh, biir département bi ñom ñu ngi ñu fekk ci kaw yoon bobu kon amna yaakar yaakaar ne bu ci wër topé ak dundu danañ mëna liggéey ak ñoom parce que am nañ si ñoom yaakaar DIC damay sant di gërëm ndax ku santul doomu aadama munoo sant yàlla parce que feebar bu ngand la ñu fekkee woon ci biir commune yi ñoom ñoo ñoo jël seen tànk dugg ci commune bi di visiter yan jafe-jafe ñu lañ am bo ñun ñu tombé ñu am jafe-jafe yu ngand ñu tek ñu ci yoon bi nga xamantene jafe-jafe bobu bu doon febar la commencé na wër waaw di sante tamit wa départemental bu kungel nit ñu yombalane liggéey bi nit ñu um, ubbilé porte yi pour ko ñu dugg mëna a ak ñi nga xamante ne faj fébar yi ñu fébar on di len sante, di len gërëm Je man maa ngi Cheikh Mambay si maa don euh, conseiller technique en charge du partenariat pour le compte du projet GBE euh GIZ di doxal fi ci Sénégal Le GBE beaucoup ko moy énergie verte pour les citoyens manam euh, nit ñi di jëfëndiko safa safara su ne ci jaww pour doxal aussi liguey yi waaw parce que énergie moo di moo di intrant bu transversal bo xamantene nit ki mënul sumb liguey am ci yene mu dem ci quantité ak qualité fek maîtriser woko té te nañ ni énergie moy premier poste de dépense ñom ñep wax nañ ko fi li ñuy jëndé gasoil dafa cher boko maîtriser wul matière première bi nga yor sax

ci ëpp seen doole am na fu mu tolloogum weesuwul yenn dayo yi tax dañuy won mbir mi ñëpp donte ñun ñii am na luñ ci mën ci wàllu xarala ak ci wàllu tamit quelquefois subvention waaw moo waraloon ndaje mi tey voilà bon ñun énergie bu ñu gën a def promotion mooy énergie solaire waaw wala énergie renouvelable en mais surtout solaire euh, loolu nag dafa laaj yenn technologie yenn xamxam yi ci conception yi bon moom it dafa caractériser wu par coût d'exploitation est faible, mais coût d'investissement est élevé. Maintenant, pour nga am ko cher mais après exploitation am day des yomb euh, ci comme nous avons des compétences de gestion nous avons un coût coûts d'exploitation faibles, faible dina deuxièmement matériel bi dafa matériel bu garanti quoi une entreprise normale. Donc, donc genre garantie lay doon sax pour nga am crédit qui lay le lu mu lay lebal noonu mën en même temps garantie donc d'amener de répondre day répondre ci contrainte euh, producteurs yi matière bi si boppam garantie te d'exploitation yi faire. donc et c'est très maîtrisable à distance Nous, les, day fexe day tax appuyer euh, et puis ces coûts d'exploitation dañuy dafa faible des tax ba prix de revient comme le maire ñuy defar wala donc bu ñuy defar doom yu a compétitif nous marché bi donc di a un produits qui fait sur ci marché bi waaw noonu rek la entreprise de monnaie croissance voilà canal est identifié mooy B2B entre deux partenaires comme LBA nous avons bëgg a mais aussi nous avons une convention tripartite jaarale ko ci Provalcé nga xamante ne mën na am yombal ci nit ñi donte ñooñu ñu ngi liggéey déjà ak LBA mu doon ñun ñu ñëw ñu fekkaat ñooñu rek pour dooleel affaire bi mën a dem voilà. gis piste bi correctement pour mën ko topp quoi incha allah. ok c'est Cheikh Mambay si je suis un conseiller technique à la GIZ en charge du partenariat. Nous avions initié cette activité d'accompagnement des groupements de la, du département de Kongol, notamment pour euh, résoudre certains de leurs problèmes liés à l'accès à l'énergie, qui, comme on le sait, est souvent un poste de dépense très élevé dans les budgets, dans les bilans, mais également un aspect important pour la compétitivité des entreprises. souvent, c'est les équipements qui coûte aussi un peu cher, donc qui nécessite des moyens de financement assez élevés, d'où la nécessité de, de, nouer différents partenariats pour faciliter l'accès de ces derniers à ces équipements-là. Euh, c'est des équipements assez robustes et d'un coût accessible par rapport aux autres sources d'énergie et plus viable dans le contexte où nous sommes, le contexte de raréfaction des énergies fossiles. Donc on doit s'accoutumer de ces énergies pour être parmi le peloton de tête dans, la, dans la production. Donc nous allons euh, pousser la collaboration avec les acteurs qui y sont déjà. On a identifié LBA, Pro, et nous-mêmes avec des conventions tripartites où nous, notre plus-value, ce sera sur le plan technique, mais éventuellement sur des possibilités de subvention et, de mise en relation donc globalement c'est ce que je pourrais dire pour ce, ce manifeste. Je suis ngi Mansali consultant euh, bi recruté pour réaliser programme de la région de Kaffrine accompagner un groupement de producteurs et de transformatrices euh, pour nous accéder à l'énergie euh, énergie solaire ci seen euh, équipement de production. Mm-hmm. donc liggéey boobu nag euh, doxal nañ ko depuis ci diagnostic wu besoin groupement yooyu. Mm-hmm. ci seen activité ñu dem ba euh, bindal leen projet. Mm-hmm. te dañoo toll ci phase boo xam ne dañoo war a booloo. dañoo war a boole groupement yooyu ak partenaires financiers yi leen mën a accompagner. ci réalisation li ñu soxla ci ci projet nga xam euh mom lañu jox partenaire yooyu euh loolu mo waral euh, programme OT bi ah ñu wo ci nak partenaire yu bari ci euh département bi Koungheul ah, ñoom ñëpp nag wuyu si muy LBA muy conseil départemental muy vision vision femme muy euh, bonne énergie bonne énergie muy euh Proval CV muy encar dégg donc nous sommes tous si nañu ak euh, chambre de commerce voilà mon nekk est ci nous, ci euh, nu euh, nous proposer promoteurs porteurs de projet ay solution yoo xam ne moom lañ doon xaar ci ñoom donc euh, am nañ ci satisfaction bu baax a baax a baax ci euh, journée bi parce que ay promesse génn na fii yi nga xam ne euh, partenaires financiers yi ak partenaires techniques yi ñu ne pare nañu pour accompagner groupement yi

Nous euh, avons wax nañu que nous euh, euh, ñu présenté comme besoin ci projet comme investissement ba fonds de roulement Nous ñu c'est un domaine là, et se s'y retrouvent là-dedans gis nañ ci seen bopp daal et que sawar nañu am na ñoo xam ne joxe nañu sax ay rendez-vous pour dem déjà ci ferme yi ñu rendre leen visite dégg nga kon loolu lépp day woone ne ñoom adhéré nañu ci projet yi et que jël nañu engagement pour accompagner promoteur yi léegi nous allons suivre ça dinañ ko suivre ci fan yi ñëw dégg nga pour mën a réaliser promesse yooyu comme ça euh, la nga xam ne groupement euh, Saloum émergent ak euh, Wa Lour Escale seen unité de production de lait bi dañu soxla daal ci euh, lu gën a jël jëmal seen liggéey kanam ñu mën ko am très rapidement grâce à partenariat au GIZ ak euh, partenaires financiers yi nekk ci département Koungheul bi. yaakaar naa njëriñ am na ci boo xoolee ñaari ñaari projets yi ñëpp am ay avenir mooy projet buy defar ay refroidir lait ak di defar soow unité bu baax la man ñam naa seen produit yi gis naa ci anam yi ñuy liggéey am nañu expertise bi am nañu compétence bi lu leen manqué juste mooy moyens yi ñuy laaj na ci projet bi dégg nga euh, beneen bi ferme bi ñëpp xam nañu ne tey ñu ngi wax euh, euh, autosuffisance alimentaire loolu agriculture moo koy moo koy moo koy réaliser te ñoom ci loolu lañ nekk donc région bi lépp lu sénégalais de lekk ci boo xoolee bool bi danga cee fekk légume dégg nga da nga cee fekk kaane da nga cee fekk loo xam ne moom la ñuy bay ci ci tool bi kon yaa yaakaar naa ne loolu euh, c'est c'est c'est évident dégg nga euh, projet yi dana am impact ci ci département bi ci wàllum ci wàllum développement suñu ko accompagner comme nañu ko euh, nañu leen ko laajee partenaires yi ci à travers projet yi moo bi mooy vraiment ma am kontaan tey ci forum bi Euh, may ñaan nag euh, participants yi ñu profiter vraiment ci opportunité ci buntu ñu leen leen partenaires yi ubbi nii parce que lii yombul nga am partenaire bi nga xam ne ñu ñaa ngi wër ay partenaire yow partenaire bu wuy la ne la ah ubbil naa la sama buntu ñëwal dégg nga ñu waxtaan mag bunge la donc fu mu nekk ne des na ci loxow euh, porteur de projet yi ñoom dinañ dinañ continuer suivi bi accompagnement bi dinañ ko continuer ba mun leen lié, bu baax a baax ak partenaires yi nga xam ne boole nañu leen tey donc satisfaction laa ci jëlee maa ngi nuyuwaat euh, waa conseil départemental ak waa euh, chambre des métiers yi nga xam ne dañoo mujj am empêchement voilà donc ak yeneen partenaires yëpp yi fi ñëw limoon naa leen maa ngi leen di remercier bu baax a baax di remercier waat GIZ ci confiance bi ñu am ci man confier mission bi nga xam ne euh, neex na ma lool waaw nekk ci monde rural nga xam ne man produit monde rural la donc ñëw ci samay naataango di leen jàppale ci lu mel pour ñu mën a sukkali ñu mën a wu loolu euh, fierté la ci man euh, je m'appelle Souleymane Mansary je suis consultant recruté par la GIZ dans le cadre du programme énergie verte pour les citoyens d'Afrique euh, donc l'homme affecté, la GSM m'a affecté à Kafrine, dans la région, euh, pour accompagner sept groupements depuis le mois d'octobre passé. Donc dans l'identification des besoins de ces groupements-là, euh, dans l'usage des des équipements qui peuvent fonctionner avec le solaire pour remplacer euh, les moteurs diesel qui leur coûtent euh, assez, excessivement cher en carburant et en pièces détachées. Et voilà, qui les bloquent souvent avec les pannes répétitives. Donc ce travail-là, nous l'avons fait euh, de façon très professionnelle sur le terrain avec les bénéficiaires Aujourd'hui, euh, nous avons fini d'élaborer euh, les plans d'affaires que nous avons soumis à des partenaires et qui ont répondu à notre appel aujourd'hui pour venir échanger directement avec euh, les porteurs de projets. Nous avons fait les présentations des projets, donc voilà, les partenaires ont vraiment apprécié la qualité du travail et ils ont donné des promesses fermes, aussi bien la banque agricole voilà, euh, le Proval CV, euh, Vision Sound qui est aussi ici, euh, Ankar, le conseil départemental. Donc, euh, ils ont tous, en tout cas, fait montrer des signes de, volonté d'accompagner ces, groupements dans leur projet. Donc, ceci est une satisfaction pour nous. ce que je peux dire aux bénéficiaires, que ça a été vraiment une grande chance pour eux d'avoir euh, eu autour d'eux aujourd'hui tous ces partenaires qui sont venus euh, leur ouvrir leurs portes euh, pour qu'ils puissent les accompagner dans leurs activités, aussi bien pour la ferme Saloum émergent de Kungol, de, que l'unité de transformation de lait de Escale. Donc aujourd'hui, c'est une opportunité que je leur conseille de, de saisir, d'autant plus que les partenaires ont même donné rendez-vous pour que dès la semaine prochaine, qu'ils vont descendre sur le terrain pour aller les rencontrer dans leurs activités pour voir comment les accompagner rapidement dans la réalisation des projets. voilà, le dernier mot, c'est un mot de satisfaction. Voilà, pour avoir eu tout ce monde-là, surtout les partenaires qui ont répondu favorablement et promis véritablement d'accompagner ce groupement. Moi, en tant que produit du monde rural, c'est une, euh, double fierté voilà, d'être euh, à côté de ces jeunes, de ces femmes euh, qui veulent eux aussi contribuer n'est-ce pas, à l'atteinte de, de l'autosuffisance alimentaire qui ne pourra pas se réaliser sans l'agriculture. Donc le monde rural peut jouer un rôle très important dans ce programme-là. Donc moi je suis encore une fois disponible pour continuer à travailler avec la GIZ que je remercie encore une fois au passage. Voilà, donc euh, sur ce, je tiens à remercier véritablement tous les partenaires locaux, n'est-ce pas, le conseil départemental, la chambre de commerce et tous les partenaires financiers. J'appelle encore une fois les bénéficiaires de saisir cette opportunité pour réaliser ce projet et contribuer véritablement dans le développement du département.